mbokk yi dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé kook l'observateur mi del soit ci remaniement bi nga xamante ni def nañ ko niki démb yéenekaay bi na gannaaw xaar bu yàgg boo xamante ni def nañ ko ci nguurug Sénégal gii président Macky Sall nag niki démb taxawal na gouvernement am maanaam deuxième mission boo xamante ne ni Amadou Ba mii moom moo koy jiite di deuxième gouvernement am bi nag waaye lañ ca gën a seetlu nag moo di président Macky Sall gën na bàyyi xel nag base politique am rawatina ci diwaanu Fatick Ziguinchor Mbour ba Matam renforcé na leen ci biir gouvernement bi waaye nag fi mu toll nii coow laa nga ca tànneefu Sidiki Kaba moom mi ñu jël def ko ministre de l'intérieur ëtt politique gi ñëpp a ko contesté direct news moom tuddee nouveau gouvernement bi ne dafa nekk ci jeu de chaise musicale am ngénte loo xamante ni dafa tàng jër en di wértóor moo di bëri ci ay poste yoo xamante ni soppi nanu ko bokk na ci Antoine Diome ma ñu jëlee ca intérieur daat koy yóbbu ci pétrole ak gaz maître Sidiki Kaba daal yor ministère de l'intérieur tànnee fam jur coow lool Ismaïla gouvernement bi bokk na ci Lat Diop Modou Diagne Fada bokk na ci Lat Diop ak Modou Diagne Fada gouvernement bi ñu génn nag ñeent ci ñoom dàq nañu leen bokk na ci Mamadou Talla ak Sophie Gladima en tout cas di président Macky Sall ñu gis mu taxawal weesul gouvernement de combat vox populi di ko dëggal ne gouvernement de combat dëgg kay boo koy xool xool ko ci gouvernement bu bees bi ñu taxawal nga xamante ni pour régler mbiru élection présidentielle yi boo xamante ni yi ñu jëm ñu dem sax bay woowee gouvernement bi gouvernement de combat présidentiel yéenekaay bi desuwaat ci quatre axes yi nga xamante ni premier ministre ñëw na si préciser na moo gën a yitteel na gouvernement bi li wér te wër daal moo di coow li bari na lool ndax juróomi juriste laa la wax dugal nañ leen ci biir gouvernement bi jox ay postes yu stratégique bokk na ci Antoine Diome Ismaïla Madior Fall maître Sidiki Kaba Aïssata Tall Sall ak Antoine Menga Diome ñi ñëpp ñoo bu bees bi Mariama Sarr moom mës jógee ci gouvernement bi mook Serigne Mbaye Thiam gouvernement bu ñëw ñu des ca biir li waral li ni lépp yéenekaay bi desuwaat na ci taxaw seetlu nag ci suñu ministre de l'intérieur bu bees bii di Sidiki Kaba nga xamante ni ëtt politique gi ñëpp ko xara jàpp nañ ne nekkul profil bu baax bu war organiser élection présidentielle yi ñu jëm Moussa Taye bu taxaw Sénégal yekk ko lu mel ne xamee tey xamle ne gouvernement bu bees L'Observateur dëggal li ni mel ci biir yéenekaay bi tey xamle ne tànneef bi de lu ñu calculer la mesure ko soog ko teg sur table président Macky tànn gi mu tànn maître Sidiki Kaba ah loolu weesuwul mauvais signal ndax moom maître Sidiki Kaba yàgg naa dëggal far gi mu far ci Macky Sall kon buñ ne moom mooy organiser élection yi xel war a tey Mary Teuw Niane dëggal li ni mel Abdourahmane Diouf taakale fekk jamono jooju président Ousmane Sonko moom mu ngay waajal bi ne veille la wax moo am ci Ziguinchor ndax ndaw yi Ousmane jiitu am confiance loolu nag ci procès bi nga xamante ni moo war a am niki tey ci alxames ji ñeel radiation Ousmane te bu ñu sukkandikoo ci Maître Ciré Clédor Ly nee na ñoom am nañu argument yu wóor yu dëgër këcc yu mën a may ndam nag Ousmane Sonko mi ba ñu dugalaat ko ci fichier électoral bi mu mën a bokk ci élection présidentielle yi ñu jëm source a def taxaw sell ci biir Benno Bokk Yaakaar nga xam ne parti socialiste boo moytul dana leen présidentiable yéenekaay bi ne iras dafim toll nii nee na parti laa la wax du ñu parrainé Amadou Ba ñu war a parrainé nag pur produit wu parti socialiste lay doon te jamono ji ñu ngi waxtaan ak yenn ci ay candidat yoo xam ne ñenn ñi génn nañu bu yàgg ci parti socialiste ak ñoo xam ne sax ñu ci biir waaye candidat la doon ñoom ñëpp nag fi mu nii ñu ngi waxtaan ak ñoom bokk na ci Malick Gakou Mor Faye Alioune Jean Baptiste Diouf ba lañ ko parrainé loolu moom lu wér la te wóor libération yéeni kaay moom diñu nettali musiba bi nga xamante ni am na ci diwaanu dax la doomi Sénégal ya ñàkk seen ni déparé na ci biir ñoo mujjee teere ji na ci diwaanu dax la te fanweer ak yooyu sax ñaar ñe bañ yóbbee hôpital dañoo mujjee ñàkk seen bakkan kenn ci rescapé yi nag di ñu nettali mbir bu doy ci mbir bi te ñuy xamal ni am na ci ñoo xam ne moom dañoo mujjoon dof ci biir géej gi nañu ñoom ñoo jekk plongel seen bopp ci biir géej gi ndax dem nañu benn moment boo xam ne amuñu lekk amuñu naan beneen passager di ñu nettaliwaat mbir bu doy waar ci biir géej gi tey xam le ne fukki ndaw yoo xamante ni sunu famille lañu bokk ñàkk nañ seen bakkan ci mbir yi ñoom ñëpp ñu ngi dëkkoon na ci duwaanu màkkakuli ñu nettali beneen gaal goo xamante ni tamit def na jéya déparé woon ci duwaanu kayaar yu bëri ci ñoom nag dañoo ñàkk seen bakkan ci biir géej gi yéenekaay bi ne li ci gën a doy waar nag moo di benn passager mu ngi xamal ni am na kum toogaloon ci biir gaal gi dafa jekk-jekk okk ko ne ko saay maa ngi dugg ci biir géej gi dem jënd cigarette te ñëwaat ba mu duggee ba léegi si kenn tegaatu ko bët muy mbir bu doy waar boo xamante ni mu ngi am ci barsak barsak gii état bu Sénégal ba léegi mënta freiner phénomène bi la baax nañu yéen ak jàmm mbokk yi ba subaak jàmm incha allah